ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen dalalaat ak jàmm ci chaîne seen bii di Leader TV day wax ne bu leen fàtte abonné gannaaw loolu ñu ñëw ak yéen ci information sport yi nga xam ne moo fi jot wàcc léegi ginnaaw bi nga xamee ni ñu ci bari doon nañ ko xaar foofee sa Bayern na ñoo ngi ñuy xamal ni l'international sénégalais bi di Sadio Mané jot naa entraîné foofee sa Bayern na ak club Bayern na gannaaw bi nga xamee ne ay coéquipier am dalal nañ ko ñoom Bouna Sarr ak ñooña moom nag Sadio Mané ñoo ngi ko fa jox dossard numéro 17 ñu koy wax mu dal jàmm foofee sa Bayern na gannaaw bi nga xamee ne def nañu jàngat sa demam ba foofee sa bayaar la l'international sénégalais bii di Sadio ñoo ngi leen di xamal ni joueur boo xam ne joueur polyvalent la mën na jouer poste yu bari mën na jouer numéro 9 mën na jouer milieu terrain nga xam ne Lewandowski mën na ju mën na nekk bayaar na sans mu nekk bayaar na l'international sénégalais boobu mën na titulaire du ko yàqal dara ñu ko si souhaiter bonne chance di leen jaajëfal di leen wax ni bu leen fàtte abonné ba beneen yoon ak yeneen vidéo